Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الذي خلق الأرض وشق لنا فيه الأنهار أحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار قال تعالى في سورة العنكبوت بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون سيئات أن أن أن أن أن, أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن الله أجل الله لآت وهو السميع العليم doomu ndey yi mbokk jullit ñi ñu ngi sant yàlla ñu ngi koy màggal ñu ngi koy kañ ñu ngi julli tey sëlmal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla mu dool ko xéewal moom ak waa këram ak képp koo xam ne teg na tànkam ci nàmb bés pénc ñu ngi ñaan yàlla yàlla boole ñu ci mbooloo mboomu doomu ndey yi mbokk jullit ñi ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk ñu tax koo ragal yàlla fu ñu munti nekk te ci loolu la ñuy amee teraanga àdduna te ci loolu la ñu amee tam li nga xam ne mooy teraanga àllaaxira ñu profité rek di jéggalu tam ci retard bi ñuy am daanaka forcé nañu pour ñëw di durant semaine bi yëpp dañoo tëdd xaw a tawat mais dañoo jaayante rek incha allah daal di ñëw ñu ñu ngi jégalu bu baax a baax tey suñu xutba dañ koy jëmale di saar bi nga xamante ne yàlla mu ngi ko tuddee jorgoñ waaye yàlla mu ngi tàmbalee ci saar bi di wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm comme ni ñu ko defee woon jàngat ci xutba bi passé ci aaya boobu nga xamante ne yàlla mu ngi naan xanaa jotul nit ki daal di delloo boppam ci boromam ci ay zikr waaye tamit bàyyi xel li nga xam ne mooy alquran bi muy jàng kon ci orbite boobu rek la ñuy dox settantal aaya yi nga xamante ne ankabut yàlla tàmbale na ko ci li nga xam ne mooy saar bi saar bi nag lu tax yàlla turee ko jorgañ mooy benn kàddu rek la leeral ci biir mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy bokkaale yàlla liñ koy bokkaaleel néegu jorgoñ sax moo gën a dëgër loolu ñuy bokkaale yàlla te ñun ñëpp xam nañ ne néegu jorgoñ mënul téye sax xeer dul jorgoñ bi rek la mën a téye waaye yàlla mu ngi tàmbale ci saar bi di wax ak ñi gëm di leen renforcer ndax des fois nit ki dina gëm yàlla dem ba yaakaar ne sax xanaa moom yàlla daf koo fàtte te fekk na yàlla ñi ko gëm sax la gën a mën a teg natt yàlla mu ne axasiban naas xanaa nit ñoom dañoo yaakaar ne an yutraku aman naa dañuy ñëw rek taxaw ne man gëm naa fëgg seen dënn moom laa yuftanuun te du ma leen teg benn natt déedéet faw yàlla teg ñu ay nattu dañu test di xool ndax li ñuy wax dëgg la si ñun wala li ñuy wax du dëgg si ñun moo tax jullit bi foofu dafay natt boppam bu baax a baax ci nattu yi ko yàlla di teg yàlla ba léegi mu ñuy leeral comme ni nga ko waxee nii wala xad fattanna allazina min qablihim du caagante ne ñun ñii la yàlla di nattu waaye ñu ñu jiitu woon yàlla nattu na leen te incha allah ci ñu ñu jiitu noonu dinañ ci jël benn exemple benn natt bu yàlla natt ñun tam ñu natt suñu bopp ci natt boobu yàlla natt ñooñu ndax ñun tey yegg nañu ci li nga xam ne moom mooy natt boobu waaye yàlla jubluwul dara ci natt boobu mu ñuy natt loolu rek pour xam ndax dañ ñu ngi wax dëgg ci gëm bi wala gëm bi dañuy gëm-gëmlu donte nag yàlla xam na li nekk ci xol yi loolu day xaw a jiixi jaaxa des fois doomu aadama yi yàlla xam na li nekk ci xol yi waaye teewal mu ngi ñuy natt est-ce que natt boobu noonu ci yàlla lay dellu déedéet natt boobu ci ñun lay dellu maanaam ñun ñooy renforcer suñu ngëm wala ñu jaaree ci natt bi perte suñu ngëm noonu lañ koy déggee xaw ma ndax ndax dégg nañu bu baax li ma bëgg a wax mooy maanaam yàlla xam na li nekk suñu xol waaye ginnaaw xam na ba pare doxoon mu ñuy natt natt boobu noonu épreuve la ci ñun imma dafay gën a dëgëral suñu ngëm wala daf ñuy delloowaat ci li nga xamante ne mooy ñàkk ngëm noonu la ñuy déggee natt bi nga xam ne moom la ñuy yàlla di natt kon ñi nga xamante ne dañuy def lu ñaaw nañu bàyyi yu ñaaw yi ñuy def ndax yàlla mu ngi naan am xasiba allazina yaamaluuna sayiaat ñi nga xamante ne ñoom dañuy def lu ñaaw yaakaar ne am nañu doole boo xamante ne mun nañu rëcc ci mbëggalu yàlla ñu ngi nax seen bopp na leen leer ne bés a ngi ci biir bési dinañu dajeeg seen borom moo tax yàlla ne man kaana yarju liqaa allah képp koo xam ne wóor na ko bés a ngi ci biir bési mu dajeeg boroomam subhaana subhaana wa taala wéet ak moom fa inna ajalallahi la aat na ko leer ne yàlla promesse promesse am du dañ dig boobu mu joxe amul werante ne bés a ngi si biir bés yi dina ñëw te yàlla mooy ki nga xamante ne inna allaha samiun alim mooy ki nga xam ne mooy aji dégg waaye mooy ki nga xam ne mooy aji xam lépp lu ñuy ngun ngunu si suuf di ko comploter di ko di ko ruumanaat yàlla mu ngi ñuy dégg waaye lépp loo xamante ne itam ñu ngi koy def fësal ko yàlla xam ne li ñuy def moom mooy lan kon yàlla mënuñu ko rëcc fenn kon nañu bàyyi xel bu baax a baax ci li nga xam ne moom mooy nattu yi ah yàlla bu rimee aay yi dañ koy dégg mooy que ne yàlla bu lay nattu des fois da koy jaarale ci say moroom nit comme yow ñu di la def ay mbir di la teg ay ay mbir waaye jàppal ne loolu ay épreuve la lu yoo yàlla teg nga muñ loo ko yàlla te xam ne bés a ngi si biir bés yi bés boo réussir rek yàlla daf koy tegg ba nga fàtte ne yow mosoon nga jaar ci li nga xam ne moom mooy épreuve yi kon loolu ñu ngi ciy ñaax suñu bopp di leen ci ñaax yàlla ñu yàlla may dégg ak topp aquli qawli haza astaghfirullah li wakum sal muslimin min kulli zambin fastaghfiruhu ghafurur rahim astaghfirullah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين doomu ndey mbokk julli ñi yàlla moom moo ñuy nattu waaye moom moo ñu sañ a nattu ci biir nattu yooyu dañ ciy tànn benn nattu rek boo xam ne yàlla nattu woon na ko te ñu ma ko nattu woon sax du kenn waaye ay mbooloo la yàlla nattu mooy ñan mooy asxaabul uxduud muy saar bi nga xam ne ñun ñëpp tàmm nañ koo jàng surtout buruj wa sama isatil buruj wal yawmil mawud wa shahidin wa maswud ba saar bi jeex ñu ngi koy jàng tout le temps ñun ñëpp koo xamante ne yaa ngi jàng amayata ba naasi rek di nga jàng li nga xam ne moom mooy saar boobu noonu ndax mu ngi si li nga xam ne mooy juzu am yàlla wàcc ay waat wa sama isatil buruj wal yawmil mawud wa shahidin wa maswud waaye qutila asxaabul uxduud yàlla nee na toskare ñeel na toskare ñeel na ñi nga xamante ne ñoom ñooy asxaabul uxduud mooy ñan mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo gasoon foos bi gas ko ba mu xóot waaye xamb ci li nga xam ne moom mooy ay safara lan moo waral ñu gas foos boobu noonu ngir di ci dugal ñi nga xam ne dañoo wax ne ñoom dañoo gëm yàlla suñu borom subhanahu wa taala moo tax yàlla ne toskare ñeel na ñi nga xamante ne mooy asxaabul uxduud an naari zaatil waquud isum alayha quhuud wa hum ala ma yafaluuna bil muminina shuhuud gis ngeen te lan moo waral loolu yëpp wama naqamu minhum illa an yuminu billahi alazizil hamid allazi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli cheyin shahid doomu ndey mbokk jullit ñi ñii de histoire bu gudd la te buñ demee ci tafsir ibnu kasir moom moo ñu ko gën a leeralal yàlla giiñ ci ay giiñ waaye ci lan la giiñ mu giiñ ne toskare ñeel na asxaabul uxduud asxaabul uxduud nag benn buur la woon buur boo xamante ne dafa amoon benn njabarkat bu nekkoon ci wetam boo xam ne moo ko doon njabaral mooy maanaam bu buggee noot nit ñi rek ci njabarkat boobu lay dem njabarkat bi mooy def ay njabaram njabar njabar ba noot nit ñëpp ba nga xam ne buur bi moom lu ko neex lay def ci kaw nit ñi njabaramkat boobu dem bay màgget ne ah buur man kat maa ngi bëgg a màgget faw kat nga ut beneen xale boo xam ne da nga koy tàggat mu jàng li ma jàng su ko defee bu ma fi jógee moom si boppam mu mun a mun maa wuute di la njabaral comme ni ma lay njabaralee nii buur bi ne ko waaw daal di tànn benn xale boo xam ne xale bu ñaw xel la xale bi day jóge seen kër di ñëw ci njabarkat bi di jàng si bu wàccee si njabarkat bi delluwaat seen kër waaye diggante boobu mu ngi fay romb benn place boo xam ne suñu jamono bu ñu koy tuddee jàkka lañ koy tuddee mu ngi romb benn place boo xam ne am na benn borom xam-xam bu fa toog waaye di wax ci diine borom xam-xam boo xam ne bu gëm yàlla la xale bi saa bu rombee rek mu ngi koy bàyyi xel waaye dem na sax ba yamatul ci bàyyi xel bi waaye daf fay jàdd sax far toog di jàngaale. bi mu demee ba commencé jaaxle nga xamante ne day bàyyi xel ko waa waa waa këram yi bu fa jugee guddee ñëw dinañ ko laaj foo nekkoon wala bu tardé ci magicien bi bu- mooy mooy njabarkat bi muy dem jàng dina ko laaj foo nekkoon moom jàngalekat bi si boppam sax moo ko jox xel ne ko boo demee ci njabarkat bi bu la laajee nee ko samay wayjur ñoo ma téye woon boo demee say wayjur buñ la laajee nee ko njabarkat bi moo ma téye woon su ko defee dina am temps boo xam ne dina toog di jàng xale bi noonu la nekkee noonu la nekkee ba benn jour ci dem boobu muy dem mu gis am ñuy jugee voyage am benn mala bu bu doy waar boo xamante ne taxawoon na pour lekk leen ñoom ñëpp te amul kenn ku leen mënoon dimbali ci mala boobu leen bëgg lekk xale bi daal di sëgg for benn xeer xeer boo xam ne bu ko sànni woon fii du def sax benn bruit waaye foofu mu ngi testé li muy jàng ci borom xam-xam bi ak li muy jàng ci njabarkat bi mu ne yow yàlla de ki ñu jàppoon fee ci buur bi mooy suñu yàlla ñun waaye kii kat jàngal na ma ne yàlla yàlla bii dëgg mooy yàlla bi ma bind bind moom miy woote ne moom yàlla la su fekkente ne nag li ma kii jàngal mooy dëgg wala li ma njabarkat bi mooy mooy dëgg wan ma ko ci xeer bii bu fekkee ne li ma kii jàngal mooy dëgg su ma sànnee xeer bi na rey li nga xam ne mooy mba- mooy mala bi yàlla fi feelu ko ci loolu mu sànni xeer bi mala bi noonu la deewee nit ñi daal di jaal dem seen yoon moom foofu la ngëmam dëgëree xale bi noonu la continuer yàlla dem ba si moom di ko defal ay xar baax su laalee dara rek day wér moo xam gaana la moo xam gumba la moo xam lu mu mënti doon ba bés kenn ku jege buur bi dégg histoire xale bi xale bi day wéral day nangam ci la daal di ñëw si xale bi xale bi daal di koy nettali histoire bi waaye daf ko xamal ay condition ne ko bul wax mukk mukk mukk mukk buur bi fan laa nekk wax ba pare tamit deuxième condition bi da ngay gëm yàlla bi ma gëm moo tax des fois loolu dañ koy xool da ngay gis koo xam ne dafa am feebar ñëw ci ki nga xam ne daf koy mocc maanaam di ko jàngal alxuraan waaye bu dañuy mocc mocc mocc du def benn résultat lan moo tax mooy ngëm nekkul ci moom boo xoolee ñu nekkoon ci kaso bi ak Youssouf gént ñëw Youssouf firil leen ko balaa Youssouf di leen firil gént bi dafa assuré pour nañu gëm ba pare mooy maanaam tey des fois nit ki li ngay li ngay ñaan yàlla wala li ngay jàng dafay fekk yow nga nekk ci ba pare su ko defee soo woowee yàlla yàlla wuy la waa ji promettre ko loolu tuub mu ñaanal ko mu gis dafa yegg si gis buur bi rek woowal ko boppam buur bi tam daal di yéemu ci kii bi mu fi jógee mu ngi gumba ñëw kii lan moo waral li buur bi ne ko ah man de dama tasante kenn mu faj ma te mu ma faj ci ndigalu yàlla buur bi daal di reetaan yaakaar ne moom yàlla bu moom lay waxal ko moom buur bi bugg commencé di fëgg dënnam waa ji ne ko waxuma la yow yàlla de yàlla bi may wax mooy yàlla bi la bind bind ma rek buur bi mer jàpp ko torturé ko torturé ko ne ko li ki la faj nii tey di nga ma ko wan torturé ko torturé ko torturé ko ba torturé metti mu doog ko wan xale bi fan la nekk buur bi dem jëli xale bi bi mu ñëwee ne ko yow kat yaa doon jàng si njabarkat bi di jàng ci li nga xam yaa doon jàng si fii si njabarkat bi kon toll nga si jàng ba toll si niveau boo xamante ne mën nga lii yëpp nii te ki fi nekkoon mënul lii mu ne ko du man maay faj lii waaye yàlla moom mooy ki mooy ki ko faj mu ne ko foo déggee lii moo ko dama doon bi may jàng si wax ko histoire bi am na ku ma doon jàll di jàng te kooku tam waxoon na ko bul mos a wax buur bi fii laa nekk si temple bii di jàng waaye buur bi tam jàpp xale bi torturé ko torturé ko ba ñu dem indil ko kee buur bi jël leen ñoom ñett ñëpp teg jël xale bi teg jël ki ko doon jàngal teg jël ki nga xam ne moom la ñu faj teg parce que ñoom ñett ñëpp taxaw dañoo weddi li nga xam ne moom mooy buur bi que moom du yàlla waaye yàlla mi nga xam ne moom mooy yàlla dëggantaan mooy yàlla buur bi tàmbalee ci ki nga xam ne mooy ki doon jàng ne ko weddil mu ne déedéet mu jël sii bi dagg bopp bi la daggee fii xar ye- jëmm bi ñaari parti teg na le ki demoon faju gumba bi nga xam ne xaritam la woon ci ñooñam la bokk la même chose mu ñëw ne ko weddil mu ne ko déedéet weddiwu ma yàlla laa gëm mu jël di sii bi xar ñaar xale bi nag moom defu ko doon waaye dafa jël dafa jël soldaaram yëpp ne leen ànd leen nag moom ba ci kaw montagne bi ba fi montagne bi yem ngeen koy bu bu ngeen bu nanguwul weddi ngeen rey ko foofu xale bi ñu yeggee ak soldaar yi ba foofu benn ñaan la ñaan yàlla yow yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci ñii ci musal bu gën gën a mucc ayib ci saa si yàlla daal di rey soldaar yëpp xale bi wàcc delluwaat ci buur bi buur bi yéemu ci loolu nag ak soldaar yi ma la boole yëpp ñëpp dee yow am na loo àndal dëggantaan waaye mu woowaat beneen yeneen groupe soldat ne leen jël leen ngeen dem ak moom ba ci géej gi dem leen ba ci digg géej gi su nangul weddi tëmbal leen ko ci biir géej bi te ngeen ñibbisi bi ñu yeggee ba ci digg géej bi tam xale bi defaat la même chose ñaanat yàlla même ñaan bi yàlla yëngal li nga xam ne moom mooy gaal bi ñu yéegoon ñoom soldat yëpp daal di lap xale bi dellu siwaat ci buur bi mu ne buur bi gis nga li ma la doon wax yaa ngi nii man mënoo maa rey ba pare nga bëgg ma weddi sama yàlla léegi nag benn condition rek laa lay tegal ndax xale bi moom li ko ñoroon mooy na nit ñëpp ci dëkk bi wóor leen ne que ne kii du yàlla waaye am na yàlla bi am mu jaroo ko sax mu sacrifier dundam mu ne yàlla kat mu ne buur bi kat boo bëggee léegi nga rey ma da- benn condition rek laa lay tegal te soo koy def di ma rey mooy jël ma nga takk ma ci garab bi jël benn flèche waaye balaa ngay tiire flèche bi waxal ne flèche bi kat maa ngi koy tiire ci ndigalu yàlla sama yàlla man bi ma gëm muy yàlla yi ñëpp bés boo defee loolu rek man di di ma rey te buur bi moom na ko rey pour ñeneen ñi bañ a mel ni moom rek moo ko ut moo ko utile parce que des fois nit ki buy def ñaawteef dafay fàtte ne sax yàllaa ngi fi su ko defee bi mu jamono boobu la buur la buur bi jël flèche bi tiire xëcc tudd yàlla bi nga xam ne mooy yàlla ñëpp tiire jam ko xale bi daal di dee rek dëkk bi yëpp yuuxawandoo ne ko nekk te yàlla bii mooy dëgg ndax moom mi bu fekkoon mooy yàlla jëm na ci xale bi mënul dara waaye dafa tudd yàlla bii rek daal di rey xale bi kon yàlla bii moom mooy dëgg dëkk bi yëpp commencé gëm yàlla nag buur bi mbir mi met metti ko mu daal di gas li nga xam ne mooy foos bii ñu leen wax ñoom ñi nga xam ne ñoo dëkkoon ci dëkk bi yëpp daal di wër li nga xam ne moom mooy foos bi nekk ci di seere li nga xamante ne ñoom ñoo koy seere seen bopp mooy képp ku gëm yàlla nañ la jël jàppale dugal la ci biir li nga xam ne moom mooy foos bi noonu lañ nekkee noonu lañ nekkee ba benn ndaw soo xamante ne moom moo ci des ak doomam bu ndaw a ndaw ndaw si dem bay jéggi nga xam ne moom dañ koy day ñëw rek ñu laaj ko su waxee dañ koy jàpp dugal mu xaw a hésité waaye doom bu ndaw bi sentir ne kat yaay dañ commencé hésité mu fàttali yaay ji li koy xaar ëllëg ak jàmm safara bi safara bu ndaw la par rapport ak safara bi ñuy xaar noonu la yaay ji dëgëree ñu jàpp ko moom ak doom ji tëmbal si biir safara bi kan moo seetaan loolu yàlla ñan la seetaan ay xaritam allahu akbar kon yàlla day seetaan xaritam ñu di ko def di ko def ba di ko tëmbal ci biir safara gi te yàllaa ngi toog waaye bi ci gën a yéeme yàlla dafa dafa dafa dig ñi doon def loolu daf leen dig nañu tuub bu ñu tuubal mbugal bu tar mu leen di xaar kon bu ñu tuubee yàlla daf leen di jéggal ak li ñu def xaritu yàlla yëpp yàlla mu ngi leen di dig jégg bu ñu jéggaloo yàlla jéggal leen moo tax histoire boobu dañ koy xool ci histoire Sumayya mooy ki nga xamante moo njëkk dee ci islam ak jëkkëram papa ak yaayu Amar yow mal xiyaam ki leen rey bu ngeen seet dégloo histoire boobu noonu moom mu jéem a tuub dugg si diine bi moo tax dañuy ñëw yàlla àtte leen ñu gis ko moom muy dugg dugg ci dugg ci àjjana ñu ne yàlla pourtant kii de moo ñu rayoon yàlla ne leen dafa tuuboon ci ginnaaw su ko defee àq boobu mu leen ameel man maa koy fayal kon gis ngeen tuub nu mu amee doole ñu ngi dénk suñu bopp nag ak di leen dénk dañuy tuub suñu bàkkaar yii jàngat la ñuy war di jàngat ci aaya yàlla yi pour aaya yi duñu jëriñ yàlla moo tax tout le temps daf ñuy wax afalaa tadabbaruuna alquraan te leen seetantal alquraan di ko bàyyi xel su ko defee seen dund li ngeen ciy dund yëpp du ngeen am jafe-jafe tey histoire bi mun nañ ci jàng lu nekk surtout crise yi ñuy dund ñu xam ne buur yàgg na fee nekk waaye buur yàgg na fee nekk di nootaate yàlla nañu yàlla may dégg ak topp yàlla nañu yàlla xiir ci boppam yàlla nañu yàlla saxal ci dëgg yàlla nañu yàlla rey ci dëgg ba keroog bu ñuy jàkk da- jàkkaarloo ak moom ñu nekk ñoo xamante ne ñu réussir la ñuy doon loolu yomb na yàlla yàlla nañu ko yàlla defal ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على الأحياء والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله